bu ñu jàppee ab nit ci benn enquête dafa am yoon yu muy jaar laata muy àgg ci àttekat bi benn bi mooy garde à bu jugee ci loolu ñu defeere ko ci li nga xam ni mooy parquet ba bu ñëwee nag jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy àttekat bi booba bu ko neexee moom mais àttekat bi mu def li nga xamante ni mooy mandat de dépôt. mandat de dépôt boo ko déggee maanaam dogal la boo xam ne ñi ko mën a jël mooy un magistrat instructeur wala. benn benn juridiction penal boo xam ne dogal bu ñuy jël jébbal ko ki nga xam ne mooy chefu benn prison wala maison d'arrêt jox ko euh, dogal bu ne ko nit ki man dama bëgg nga téyel ma ko ci prison parce que li ak lii lañ koy toppee pour man mu mën a am jot bi nga xam ne investigation yi ma war a def ma def ko. ki ñu jàpp nag mu nekk si mandat de dépôt kooku atteeguñu ko dañ koy jël teg ko ci loxo yi ki nga xamante ni moo yore kaso bi ba keroog enquête bi di jeex. waaye nag teg loxo boobu dafa am diir. mu mën a am temps jël dossier bi saytu ko. xool li mu ciy def ba pare woo nit ki prison mu toog bureau bu dee juge d'instruction la mu mën ko poser ay question ginnaaw bu saytu bi jeexee ak lu ci mënta tukkee ki ñu jàpp mën nañ koo daan wala ñu bàyyi ko mu ñibbi